gannaaw bañ mi temps wee ñoom ñaar Fils de ata Bour Sine 2 daan Bawal Fils de Falaye Keur ana kot suba demoon saan ab sifle waat na Bour Sine ak Fils de Falaye nana bañ naam Bour Sine ak Fils de Falaye Bour Sine ak Fils de Falaye Bour Sine mépp na waa Fils de Bour Sine saan Bour Sine Bour Sine ak Fils de Falaye Bour Sine na ee eh, Bour Sine toog na si kawam xeex nañ xeex waaw xeex bëgg naa lii am Diop indi Ndiaye bëgg naa lii waaw waaw bëgg naa lii jam na ko mu bañ siin buur siin itam dafa laay at buur siin dafa laay at buur siin ndeysaan jàppante na ñoom ñaar Fils de Falaye damante nañ baaraam ñoom ñaar xool ka leen ñu xool arbitre avertissement ñaar ku ne am nga ñaar avertissement arbitre sifflé war na Fils de at Bour naar bi may na leen kot naar bi kot kaat leen may fi mu nii eh Bour jam na ko Bour jam na ko saan Fils de Falla at Bour Sine Fils de Falla eh jam na xeex nañ ñoom ñaar Fils de Falla Bour Sine eh ma dóor dóoral ma dóor waaw waaw bëgg naa lii bëgg naa lii joko ma joor joko leen jaa na tànk ba jëlaat na tànk ba ñu xool nu diraat na ko da ngay gisaar wala oh saan Bour Sine entraînement wóor et le maire c'est gosse et le génération et le maire c'est na coppet tànk ba daw di ko takk booy bi fi tax mu yónni loxo ba sa seconde ya bàyyi ko fa saan saan ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi soo xoolee kii di fils de Falaye coppati na ñaari yoon tànk waaye tànk saa boo ko jëlee da ngay arrière ñaari pas tànk bi xaw a tàllee ko nga yónni sa loxo sa dënnu ngemb la daw daw gitaar ko wala daw sukkar bi ko oh. kenn du Mamady Ndiaye il est saan saan bëri leen waaye ngi jàpp Senghor rek caxabal na ko moom sa falaay waaye Bour bañ na caxabalaat na ko bañ caxabal bi ñorul da lay gersu rek de boo ko caxabalaatee bal bi ñorul ndeysaan waaye noonu ànd ak jeex na ndeysaan leen di mayaat ñu xool ndeysaan machine yi la machine la machine yi la machine yi machine yi